al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki daal yi maa ngi leen di nuyu te di leen siyaar di ko teg ci loxol sëriñ xaadim ak sëriñ xaban yàlla na yàlla nangu ñaan yépp te boole ñu ko mbokk mi laaj atteeb ñaan nit ñi seen alal ci lislaam ñaan ak yalwaan dépp bu fekkee ne aajo la nit ki dafa am lor am ay aajo te mënu koo faj ndax wéerut ba mën a liggéey wala la muy liggéey la ko cay dikkal doyu ko ba mën a faj ay aajoom kooku sañ naa tàllal loxoom ñaan wala yalwaan lu tollook ajo ja amma di ñaan nit ñi wala nga deen yalwaan ci loo xam ne du ajo nag looy daja rek la loolu dafa xaraam ci ab julit do islaam nee na ku ñaan nit alal ngir yokke ko alalam su boobaa na xam ne ay xal lay lekk wax na feneen ne nit ki danay ñaan di laaj ba yomal xeem buy dekki xar kanamam dara yàpp du fi des maanaam gàcce lay dekkiwaale kon dafa xaram ci ab julit muy tàllal loxom di ñaan nit wala mu di ci lu dul aajo benn xadis bi sax ne koo xam ne am na kàttan te dara jotu ko mën a liggéey kooku sarax ko sax daganut wallahu taala alam mbokk mi laaj ne ak leeral di sàkku ak leeral ci xadis bi ñu isla wax ne wala du zina charru falafati mel ne doomi njaalo daal ñaar yi njaalo bu am ko moom moo leen yées muy laaj xadis boobu nuñ koy dégg xadis bi de am na ci borom xam-xam yi ñu ko saxal eh, niñ ko déggee nag ay dégg yi la bokk na ci ñu wax ne moo yées ci ñett ñi bu jëfee seeni jëf ndax moom daa cosaanoo ci lu bon ba pare ba noppi nag bu ca boolee def lu bon day yées waaye jublu ñu wax rek ne mooy yées mut laxan waaye bu jëfee seen jëf moo leen di yées ndax moom da caa boole jóge fu bu jaw jagut la ba noppi di jëf lu jagut kon mooy yées am na it ñu ko déggee ne eh, li gën a bari ci ku mel noonu ñaare baax da koy jafe ndax ginnaaw ci eh, mooy yàlla la sosoo mooy yàlla tax mu am moo sabab ak amam bu mooy yàlla amutoon du am moo tax ñu ne ñool li gën a bari ku bon lay doon waaye léegi-léegi nag am ku doon doomu jaara ba nag baax moom kon naa ne bi bu dee amit maxsuus la jublu ñu wax ne doomu jaalo yëpp noonu la mel waaye daal li bari ci ñoom noonu lañuy mel ndax cosaan lu bon liñ am waaye loolu nag du tekki mukk ne daa am daa doon dara ci bàkkaar bi moom su su màggee jub tegu ci yoon moom ku baax la dafa mel ne nag xaris day wax ne dañ koy dégg ne loolu bariwul lu muy am bi ci des it saa bu defee ni ay juram def moom boo waa mu leen di yees wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku yor alal li mbooloo lu mel ne daayira wala yu mel noonu ndax moom mi ko yor bu ci amee ajo mën na caa jël ngir bu lijjanti ko delloo wala ku bokk ca mbooloo ma it moom njiit la mën na ko caa jox kooku dañ ko wóolu ba dénk ko ku ñu dénk nag daa war a nekk amin mooy lépp lu muy jëfandiku ci ndénkaan lan na fekk muy lu ñu juboo ak ña ko moom waaye moom mu jékki-jékki jël ca di ca soppaxndiku loolu ak jalgati lañ koy tudde euh, doonut lu dagan euh, bu ci defoon commerce ba am bénéfice danañu wax ne moomum bénéfice am waaye am na bakkaar ci soppaxndiku soppaxndiku ci alal jiite te mënoon naa perte wóorut ba tax dañuy wax ne loolu sax saraxe bénéfice ba lañ koy digal ngir yàlla mën koo jégal bàkkaaram kon du dagan nit ki ni maa jiite mbooloo mi alal di maa koy denc su ma amee soxla ci laa koy faj bu fekkee nag da caa bëgg a faj soxla nag ko ca mbooloom buñ ko joxee ndigal lebal ko suba moo xam lañ ko lebal keneen kum ci bëgg a lebal it noonu waaye waru caa soppax ni ko ci wàllu boppam wala keneen ci lu dul ñoom ko seqal ñu bokk ñu ànd ca ba juboo ca wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na nit koo xam ne dafa am salas nga xam ne bu jàppoon dem jumaa ja di déglu xutba ba la ñoo xutba ba noppi sobe eh, sobe mën naa génnaat ndax ajuma da koy war wal da walla salas bu fekkee ne day taqoog nit ki li ëpp ci jamono su boobaa dootul tojati njàppam kon moom bu julli jotee ajuma ak leen lu ma a doon day jàpp ndax dem julli bu dara génnaate tey du tee sañ naa julliwaale sobe soosu ndax ngànt la kon bu fekkee ne dal li ëpp ci jamono ji la koy dal kon bu jàpp julli jaamu yàlla jotee day jàpp bu jàppee ba noppi nag lu mën a génn te it mën na ko julliwaale kon am salas du tee ajjuma war nit ki ndax du tee mu mën a julli bu dee salas buy taqoog moom li ëpp ci jamono la wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax kuy naafila sañ na di ko dagg-daggee du julli ñaar rakkaa di noppalu ak ndax safa ak witar sañ na leen a tàggale lu yàgg waa noppalu de sañees na ko julli ñaar rakkaa taraawee bokk na ci turam turam woowu maanaam moomu nga xam ne julli ñaar rakkaa noppalu door a julliwaat sañees na ko amma safa ak witar nag li gën mooy boo sëlmale ci safa nga teg ci witar tàggale ko ci lu yàggut wàññiwul dara waaye bu dee dafa yàgg sax nag dañuy sopp dañuy santaane nga baamuwaat safa door a filtre waaye li gën daal kon mooy musa si wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na fu mbooloo daje waxtu jot nee na ñuy noddloo nit muy laaj ba xam ndaxam loolu war naa mën a nekk wala noddu ci jàkka rek lay ame waaw noddu moom sunna mu akkada la ci jépp jàkka jàkka june rek nodd fa sunna mu dal bu dee mbooloo moo xam ne nag dañuy seenu ne buñ noddee meneen mbooloo ñëw fekk si leen julli si wala am meneen ñoo xam ne xamuk waxtu wa day aju ci seen nodd ga suba bàyyit bëgg nañ ñu nodd su waxtu jotee dooru julli donte nekkuñ ci jàkk waaye bu dee mbooloo moo xam ne nag fañ tëju kenn du leen fa fekk si te buñ noddee it kenn du ko dégg kenn daal am du ci jariñ ñoom rek la su boobu ñooñu mbooloo yu mel noonu nag dañuy tere moom ñu noddu fu mel noonu kon mbooloo moo xam ne nekkuñ ci jàkka waaye yaakaar nañ ne buñ noddee ñeneen danañ ñëw jóge feneen ñëw fekk si leen su boobaa sant nañ leen bu waxtu jotee ñu nodd door julli moo xam daara la wala dajewukaay wala lu mën a doon wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax saraat dafa am ay heure yuñ koy def ndax daa dégg ñu ne ko digg bëccëg yooyu kenn du ko saraxe waaw saraxe ci lislaam day waxtu yépp lañ ko mën a def muy guddi muy bëccëg am na nag ay bis yu gën mën na ramadan ci misaal saraxe ci koor moo gën saraxe ci budul koor fukki fan yi jiitu ci tabaski fukki fan yooyu saraxe ci moo gën saraxe ci yeneen bis waaye yu dul yooyu nag moom sarax amut waxtu amut it aw xeet naa la saraxeel nangam couleur bu mel nangam waaw bu dee sarax daal lu amal njariñ ku woo nga jox ko ngi yàlla moo tudd sarax bu ci leen raxee rek nag leen lay doon du du nekkate sarax ngir yàlla wallahu taala alam mbokk mi laaj luy àtteeb laaj addiya waaw laaj addiya day bu fekkee ne nit ki koy laaj moom moo koy jariñoo ci buntu ñaan la dugg ndax laaj rek la moo xam laaj addiya laaj sarax wala laaj ak may loolu bu dee nit ki da koy def ci lu dul aajo loolu daganut ku am aajo nag sañ naa sàkku ndimbal ku am aajo sañ naa sàkku ndimbal moo xam ki koy joxe nu mu koy tudde bu def sarax bu dee may bu dee hadiya fekk aajo la amma bu dee koo xam ne nag dafa am ay procès lislaam ay jàkk ay daara di laaj ak njabootam hadiye ngir defal leen ko ca loola buñ ko tuddee hadiye yi dëgg-dëgg loolu woo leen ci ab liggéey la mooy dimbal leen ngir ñu jaruñu la bunt boobu lañuy joxe moom eh, dana lu ñuy sant leen njiit la ndax bëgg ñoo jariñu ba naal yi lislaam am mu leen di woo ngir ñu joxe ci seen alal ngir mën a jariñu tey ak bu ëllëgee loolu aw yiw rëy la xam naa bu fekkee day laaj rek ngir nag di ko dunde moom di ko jariñoo moom aajo moo ko war a waral mënta liggéey te am na aajo yoo xam ne mënu koo fajal boppam sañ na sàkku ndimbal ci njabootam wala ci ay xameem wala ay xaritam wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na xabla salaam ak baxda salaam lan moo koy waral ci ak julli loolu ku juum xabla salaam mooy sujjóot njëkk ngay sëlmal mooy ku juum wàññi ci julli gi ab sunna mu akkada wala ñaari sunna yoo xam ne nekkuñ mu akkada jëm kaw nga juum wàññi leen kooka bu jullee ba sëlmal dese ko day su sujjóot ñaari sujjóot taayawaat dooru sëlmal loolu lañuy ñuy xabla salaam kon ku wàññi ci julli moo koy def wàññi gi nag mooy na wàññi loo xam ne sunna mu akkada la benn donte benn la wala ay sunna yu woyof te ëpp benn bu dee sujjóot ba'da salaam nag ku yokk ku yokk dara ci julli gi moo koy def te teyu ko yëpp ñàkk tey la waaye loo yokk wala nga wàññi ko ci julli te tey ko moom sa julli da yàqu bu dee li nga wàññi day farata it nag faw danga koy jàng mooy dangay indi farata ja soo ko mënee indi defar ko su fekkee ne faat na mënatoo koo indi te mënoo ko dabaatal julli da yàqu waaye ab sunna mu akkada wala ñaari sunna yu woyof mooy tax nit ki di sujjóot xabla salaam yokk dara ci julli ay wax ay jëf yu bari mooy tax nit ki sujjóot ba'da salaam wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na daa bëggoon a xam diggante sëñ Tuubaa ak alxuraan loolu de dub laaj jàpp naa ne waaye waxtaan la diggante Sëñ Tuubaa ak alquran ay conférence mën nañ ko cee def waaye boo ko doon tënk day waxe daal alquran mooy moom la jàppe woon limu mu doon mooy yàlla moo ko wàcce ngir muy wan nit ñi yoon di wan yoon ci lépp lu ñuy dugg moo tax sëriñ bi defoon ko muy léppam doy na ci li mu wax ne kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa oxra min alkarbi alxuraan téere la boo xam ne ci lañ yaakaare yërmaane ci yàlla ci lañ yaakaare it mucc ci ay tiis kon liñ bëgg mu yërmaane yàlla ci alxuraan lañ ko yaakaare li ñu ragal muy ay njàqare ki tiis ci alxuraan lañ yaakaare mucc ci wallahu taala alam mbokk mi laaj ne na ci wàññi julli transporteur bi nga xam ne day tukki dem ay semaine nee na ci dëkk yi ndax day wàññi julli waaw bu fekkee dafa génn këram day dox distance bi tax ñu sañ a wàññi mooy juróom-ñaar fukki kilomètre jëm juróom-ñaar fukk su xasee génn ab dëkkam rek bu waxtu jotatee day wàññi ci yoon wi ak fa jëm fa jëm nag su fa àggee te di fa am ñeenti fan moom dootu fa wàññi bépp dëkk boo xam ne dafay dem am fa ñeenti fan door a jàll dëkk boobu du fa wàññi julli suy jàllaat nag wala muy wàññiku door tàmbali wàññi waaye bu fekkee day am benn wala ñaar wala ñetti fan ci barab jàll feneen lu mu yàgg-yàgg doonte at la day wàññi julli xanaa mu dem ci dëkk boo xam ne dafa am soxna bépp barab bu am soxna moom dafa wàññite mu ne it am na koo xam moom nee na amul fu mu dëkk ci oto bi la dëkk waxtu yëpp ci oto bi la ko dëkk ndax kooku sañ naa wàññi julli fii ak mi ngi tudd ab musaafir nga xam ne di déplacé ci dëkk dëkk sañ naa wàññi doonte dafa ànd ak soxnaam ci oto bi sax nag ak musaafir lañ sax ñu ñëwaat ñu julli ndax foofa du dëkkuwaay dañ fay de oto bi dañ ci dañ ciy nekk tey suba mu ne feneen ginnaaw suba ne feneen kon mu ngi déplacé dëkkul feneen waaye nag bépp barab boo xam ne dañ fay sax ñeenti fan nag moom duñ fa sañ wàññi julli dañuy matal ba ba ñuy jàll wala ñu wàññi ko wallahu taala mbokk mi laaj Eh, cir yooyu ñuy defar mu mel ne awray góor ak jigéen nee na eh, nit ñi di ko jëfandikoo ndax day dugg ci buntum njaalo wala déet eh, du dugg ci buntum njaalo ndax njaalo mooy góor ak jigéen gu jaxasoo ci buumu sëy du xul seen diggante wala lu ne demee waaye day dugg ci buntu li ñuy wax istimna mooy nit ki di focc ay ciram ba génn man yu loolu nag ci mazhabu imam Malik dafa xaram moom dañuy wax ne lislaam sette mooy soxna wala moomeel ba moomeel di am ku bànneexu ci yeneen yu dul ñaar yooyu def nga jéggi nga dayoo waaw def nga lu xaraam kon ci masab malik lu def mbokk mi laaj ñaari nit ñoo xam ne ay chrétien lañu woon doon góor ak jigéen doon sëy ginnaaw ba ñu ànd dugg ci lislaam muy laaj ba xam sëy ba dañ koy fasaat wala déet kenn du ko fasaat dañ leen di bàyyi ñu wéy nekk soxna ak borom kër wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na kawas yoo xam ne nee na der lañ koy defaree nit ñi di ko sol di liggéey muy laaj ba xam naa manis na ko julliwaale bu fekkee ne lañuy ñuy wax xuff la jubla wax mooy aw sang dallu der la loolu ay sart la am ngir nit ki man koo julliwaale waxuma la man koo julliwaale waaye bu njàppam tojoon sax buy jàpp mën na ko bañ a summi loolu daal yooyu dañ ci sart ay sart maanaa dañuy sart ci nit ki juróomi sart sart ci dàll wi juróomi sart dañuy wax ne ngir ñu saña a ngir ñu saña a masaa ci dàll wi nga xam ne danga koy sol bu som jàpp tojee doo ko summi kon booy julli da koy julli wala yëpp euh, mooy ne na doon derwu laab kon faw ñu xam ne der wi dañ ko rendi rendi ku dagan bu mu doon deru medd kon kon na doon der bu mu doon ay yeneen kon der lay doon te nekk derwu laab na nekk derwu laab na nekk der woo xam ne it dañ koo ñaw mu mu doon daaj ay pont waa ko dañ koy ñaw na nekk der woo xam ne it muur na farata ji maanaam tey a bot la daal nga xam ne boo doon jàpp li ngay raxas ci tànk bi lépp der wi muur na ko bu doon lu mel ne maraakis te sën mi feeñ doo ci sañ mas doo masa na doon der woo xam ne it mën nga koo sol di dox bu mu xat bopp bu mu yaatu bopp loolu mooy sart yi ñu sart ci dàll bi bu dee nit ki nag na ko sol ci laab yow bëggee bu sam jàpp tojee nga mën a euh, booy jàpp doo summi dàll waaye da ngay masaare ci kaw dàll bi da ngay rek raay ci kaw dàll bi waaye doo euh, koy sol ci laab laab ga nekk laabu ndox nekk laab gu mat te soloo ko ci mooy soloo ko ngir rek bëgg lu neex ak diw say tàng ngir bañ mu bañ bañ mu weex tax nga ne nga ne du ma ko summi waaw euh, da nga koo sol ngir dund sunna wala da koo sol ngir fekk ab sedd wala aw tàngoor walla yu mel noonu euh, da ngay jàpp ba noppi kon da jàpp ba noppi euh, ba sam jàpp mat nga door ko sol kooku dañuy wax ne sax bu sam jàpp tojaatee booy jàpp man ko ñu summi amma bu fekkee julli rek ay dàll dàll wépp dàll wudul yooyu sax nit ki mën na ko julliwaale bu la leeree ne sobe newu ci bu la leer ne sobe newu ci dàll mën nga koo julliwaale saxaaba yi radiyallaahu alayhim dañ daan sol seeni daal di ko julliwaale yonentu alayhi salaatu wasalaam bis julli na ba mu yàgg ci biir julli gi mu summi dàll yi saxaaba yi gis mu summi ñu summi mu summi dàllam ñoom itam ñu summi bi mu sëlmalee laaj leen lu tax ngeen summi seeni dàll ñu ne ko dañoo gis nga summi ñu summi muñ leen jibril moo ma wax ne ma sobe da cee ne nga xam ne kon dàll bu taxut sobe sañi sa ko julliwaale xëy na nag jàkk yi niñ ko defaree léegi di ko lal étape moom duy teggin ñu defu sol yi daal waaye bu doon foo xam ne nii dafa euh, tàng wala mu yor sedd boo xam ne day lore ci dàll wi nga sol mu leer na la ne sobe newu ci mën nga ko julliwaale rawatina bu dee yooyu nga xam ne moom waxuma la julliwaale ko waaye euh, bu sam jàpp tojee sax mën nga ko bañu summi tam asaa ci kaw dàll yi ci kaw sart yooyu wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na daa gis bu nit faatoo ñu koy denc am ñoo xam ne ñaari kër lañ leen defal am ñoo xam ne génn kër muy laaj ba xam lu ko waral waaw ci lislaam day ni ñuy robe aw néew ñaari xeeti robin moo am li ñuy tuddee laxd ak chaq laxd mooy bu dee suuf su dëgër lay am dañuy gas am pax mu xaw a ca penku pax ma ca suuf ñu gasaat am meneen pax moo xam ne néew ba dafa néew ba dafay xaj ñu dugal fa néew ba fatt bunt ba nga xam ne pax mi nga gasoon boo koy suulaat paxum kese lay doon loolu mooy laxd yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu lañ ko dencee chaq nag mooy ni li ñuy tuddee fii ñaari kër dangay gas am pax gasaat ci digg bi meneen paxaat teg fa néew ba wut ay bant wala ay dénk yoo xam da nga koy fatte pax mi door a sotti suuf ci kaw néew bi ñaari dencin yooyu lañ xam ci lislaam bi ci des nag lu tax ñu di ko def mu xawma ko waaye ñaari dencin yi moo am ci lislaam lahad ak chaq te du moo gën bu dee suuf si nangu na ko wallahu taala alam mbokk mi laaj ne ne koo xam ne daa amoon soxna ginnaaw ba nag bàyyi soxna sa amul dox dégg moom ba mer mu ñëw tàggale leen jël soxna sa yóbbu këram nee na waa ji nag waxu ko ne wàcc na ko bu yàgg ba tey mu laaj ba xam na xam loolu waaw bu fekkee ne wàccu ko day ba tey soxna na ndax bàyyi nag amut sañ-sañ ci wàcc soxna am na xadis bu wax ne ak at-talaaqu liman yaxudu bi saaq boroom kër rek moo sañ a fase wala ku taxaw taxawaayam mu yoon waaye bàyyi amut sañ-sañ ci ne sama doom ji maa la ko mayoon nangu naa ko mu jeexam noonu loolu du ko jeexal euh, li wolof yi di wax naan sëy la ko takk toosu ko lu wér la bàyyi koy fas waaye nag mënu koo fecc faaw moom fu muy jaar kon nangu ko yóbbu teewut muy soxnaam saa buñ ko mayee keneen nañ xam ne soxna si amul lañ mayee fii ak borom kër ba jukko muy daw bay daan jeex wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ci lislaam góor ñaata garaami xaalis lañ ko may ngir mu takk ko ab jaaro waaw ci mazhab yomal bi ñu nekk day benn jaaro lañ may góor mu takk ko boo xam ne bum mu ëpp juróom benn gram benn jaaro lay doon te bu ëpp juróom benn gram loolu lañ ko may wallahu taala alam